doon nek ci kaw ki nga xamne ke modi basir di Bassirou manel Faye ci dal di ñew ak ak ak aussi naka dal di jangate ces 19 candidats yi nga xamni itam euh, dialogue national bi euh, japp neen di leen dal di reconduire en attendant ñuy dal di xalaat yeen dossier exactement. waaw man pour man candidat 19 candidats yi am nañu mérite déjà hmm. parce que. Hmm. dañu jaar ci processus ñu dem euh, ñu dem ci contrôle parrainage yoy yep hmm. vraiment lañ leen demandé won ci parrain parrain ñu matal ko. kon déjà ñom am nañ méritu jàll. maintenant nag ci seen sañ-sañ mooy ak lu mën a am ak fu ñu mën a jaar ak lu ñu mm. mën a def. Mm. mooy déjà ñoom nañ leen reconnaître ni ñoom sont déjà valides. Mm. loolu c'est un droit déjà acquis léegi problème bi mooy ñi nga xam ne dañoo subir l'injustice. ñooñu lañ war a taxaw ci seen situation. Euh, mais kaw Karim Wade rek lañ jël. Euh, mais def na mais dañ ko def entre guillemets waaw waaw en plus des 19 candidats déjà validés. les dossiers des candidats reculés Kaaw Karim aussi si lay bokkaat. fois seront réévalués pour une possibilité de réintégration. ñoom bu leen koy daneeg ñoom Aminata Touré ñëpp dañuy ñëw mais Serigne est-ce que jàpp na ni itam opposition bi suñ ñëwee.

si dialogue bi ak aussi liñ wax après si euh, conclusion yi nga xamni tam dialogue bi moko dal daal di déjà. wa mais man xam nga recalé yi ñoom bi saisir le président Macky Sall bobu kenn saisir ko bobu yii yëpp xewagul yii yëpp xewagul Macky Sall c'est le garant de l'institut du bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Mm. bu ñu amee ay lënc-lënc administration surtout la justice tek leen injustice. Mm. war nañ mën a waxtaan ak le président de la république. mais ñoom demuñu. demuñu ci dialogue bi mais non mais non mais bind nañ ko. xam nga du demuñu mais am nañ lu leen représenté xam nga am nañu représentant ci débat ci kii bi euh, ci euh, waxtaan bi ñu def dem. Hmm. mais am nañu leen représenté. mais demuñu mais demuñu mais. il le précisé ànduñu ci dialogue. non ah, non xam nga ànduma ci dialogue ak dem nga. si nga représenté non xam nga dafa am ñoo xamante ni. am na ñoo xamante ni. Hmm. mën nañ génn par exemple ci kaw ñu ne demuñu. mais fekk ka leen représenté ñoom ñoo ko yebal xam nga man ak yow mën nañ bokk coalition. Hmm. ñun ñëpp ñu màndaate la nga dem ci suñu kàddu ngay waxee yooyu yëpp mën naa am ay possibilité la donc am nañ ku leen demal ku leen waxal seen situation. mais Aminata Touré bu ñu gis sëriñ nag. Euh, euh, Bougane Gueye Dany bu ñu gis. waaw ah. Babacar Diop bu ñu gis étant d'autres étant d'autres dañoo rejeté. ce dialogue de président Macky Sall. même Bougane kenn mandaté wu leen kenn représenté wu leen. kenn même Bougane xam nga ñom ci collectif lañ nek même Bougane ci ci ci ñi demul la bok mais li pour kii bi Bougane biñu dem di euh, biñu dem ci président de la république. xam nga mom hmm. dafa génne. wané ni mom hmm. demut andu ci. Hmm. amna ñeneen ñu ni génn dem andu ñu ci. te pourtant signé nañ lettre ba xam nga signature ça ne veut pas dire que and nga ci ñi li ñi def.

Euh, sëriñ ñii refusé refuser dialogue catégorique ils sont catégoriques par rapport à ce dialogue. mais loolu du ci dara. donc est-ce que duñ tax raison président non non non Nous euh, jox raison. na non a wax leen woo ñu ne non non parce que dialogue non non pour cas parce que hmm. injustice c'est juste ñu dem di waxtaan ak Macky Sall pour ñu boole laat waat leen mais dañ leen a tooñ. ku leen tooñ conseil constitutionnel. mais conseil constitutionnel ñu dem kalaame ki nga xam moo yilif lépp man le logiciel du conseil constitutionnel moo leen informaticien bi moo leen tooñ injustice la. man foofu dama fa ànd ak ñoom ah. mais si naka la leen tooñee Serigne parce que. tout le temps yaa ngi jàpp ne dañ leen dañ leen tooñ ah, mais nag Fallou nag loolu moom ñëpp même ñi nga xam sax nekk nañ ci euh, mouvance présidentielle bi am ñoo xam nangu nañ loolu. parce que mënoo concevoir Fallou mii nekk conseil municipal di voté am danti dem nga jël ko dugal ko say liste de parrain nga dem logiciel bi ne la kii du électeur. Hmm. loolu nag lan la Cheikh Diagne Gadio kay man moom a gën a yem man dugal déglu naa ko nee na moom ay parrain am daa dem affaire bi yokk ci ay tin te nee amul benn parrain bu sant tin xam nga loolu tamit injuste la est-ce que duñ ko réparé Abdourahmane Diouf yéen a ko gis en conférence de mu ànd ak ay techniciens ñu yokkal ko ay A ak ay Z est-ce que loolu photo Abdourahmane Diouf la. mais du photam. Hmm. léegi nag injustice dañ koy réparer waaw Karim li ko dal du injustice loolu moom ça s'inscrit dans l'ordre normal des choses parce que loolu kooku moom conseil constitutionnel constitution Sénégal moo ko dàq moo amul benn injustice bu mu ci subir tout ça c'est Karim Wade c'est Karim Wade Karim Wade le président Macky Sall. mais est-ce que conseil constitutionnel euh, Serigne dina nangoo xoolaat loo xam ne moom de son propre gré xoolaat li nga qu'il justement dossier candidat est-ce que conseil constitutionnel lu nu mel jàpp nga dina accepter accepté wala dit au cas échéant est-ce que d'une titre vers une dissolution justement du conseil. C'est ce la nit ñi pour créer une cour constitutionnelle parce que conseil constitutionnel le fait que muy ñëwaat. en tout cas coow li de son propre gré. coow li jeexagul waxtaanee ko si dialogue national rek. ñu ne pour vous dire vrai coow li jeexagul. et que le président Macky Sall n'a pas encore dit son dernier mot. moo tax man la mom bu waxé ni euh, bu waxé ni paré na ci affaire yi paré na ci mbir mi jusqu'à preuve du contraire bu fi ñu taxaw man gëmaguma ko. Hmm. man gëmaguma ni le président Macky Sall paré na ci mbir mi gëmaguma lolu fallu li tax ma gëm ko moy ñu le 2 juin comme japp nañ le 2 juin ñu egg le 2 juin ñu xol ce qui va se passer man la gëm. le 2 euh, le 2 le 2 juin c'est gëmoon ni élection am à cette date. non gëm na ni mëna am. à cette date mais xam nga fii mënaguñu wax lu leer parce que conseil constitutionnel il faut mu addu ndax fay avaler li gars yi décidé. parce que conseil constitutionnel a le dernier mot conseil constitutionnel bu gàntalee Macky Sall ci date bi foofu problème bu nek problème institutionnel bu nek mën na fa éclaté le président dafa mere dafa méré conseil constitutionnel ci sama njangat te conseil constitutionnel parewul pour may ko dara momit en tout cas amna parce que boobu tey le conseil constitutionnel. non depuis affaire Diomaye Faye ba légui xex lañ nek ci combat jàllu ko jàllu Bassirou Diomaye Faye ba légui conseil constitutionnel ak exécutif bi ci xex lañ nek ci combat. parce que ñom batay ñom gëmuñu ni basiru Diomaye fay mën na jàll. Hmm. gëmuñu ko batay parce que bo waxe ñu ngi lay évoquer ay kasso la né signature ba caution ba nangam nangam caution bi jaarul ci kontam et cetera ñu gëm yalla ni basiru mën naa jàll ci élection présidentielle loolu lañ ñu mën ando ci fim tourné alors euh alors Serigne. leneen tam lo xamni ah, président du Sall. coow li jeexagul de te gëw ni sax commencé na bay jeex. Hmm. waaw. le 2 juin bi ah nañ dem ba conseil xool conseil constitutionnel lu muy décider ndax dina <laughs> revenir en arrière ndax le conseil constitutionnel va revenir en arrière hmm. ci ay décisions hmm. les décisions de 2000 de 2000 euh, de 2005 décision 2009 décision 2016 bi wax ni yota moom hmm. loo ko yokk si sa mandat yota te nee le li buñ ko nangulé le président Macky Sall mom kay moy mënoon nañ ko baye ak datu le 15 ans rek recours bi opposition bi a déposé fa nga xamni conseil constitutionnel parce que ces six candidats ont dialogué avec le conseil justement le jour du dialogue du président Macky Sall euh, ba ñeexital nga japp ni war ko daal di am processus oui mais xam candidats candidat yooyu nga euh, recours. Hmm. auprès du conseil constitutionnel. Hmm. c'est déjà euh, leur droit parce que japp nañu ni ba le président maxal doit dafa war conformer wu ci décision conseil constitutionnel.

moo tax dem gis nga mais mais euh, mais xam nga ñi la doon wax que dóor ñooñu bu fekkee ñoom nga ci solution bi duñ la wax leneen lu lay génnee ci kaw en tout cas ce qu'ils ont fait là c'est le droit le plus absolu parce que jàpp nañ ni le Macky Sall a trans transgressé encore une fois la constitution nanguwul jëfee fait le conseil constitutionnel sant loolu tax ñu dugal recours. Hmm. léegi nous nañu xool xam recours parce que nous tamit am nañ habilité pour pour def c'est parce que c'est des candidats valides ñoom ñu ngi exercer le conseil constitutionnel pour mu jël ses responsabilités. waaw mais fi mu toll nii moo jël ay responsabilités parce que nee naa la bu ñu ko nangulee lii fàllu mooy mënoon nañ ko bàyyi date ba datu 15 ba C'est la même chose hein. Le conseil Le report la woon rek lii tam report la est ce que dañuy avaliser report bi bañ report ben nangu report bi amalgam, gàmm paradoxe. alors <laughs> réew mi dafa mel ni instant bi Sénégal duñ ko poñe sëriñ. Sénégal kay sa waay dama ne la. xaw ma poñe xaw ma nu mën a demee mais nag lu ci mën a am. mooy delluwaat ci li olof njaay doon wax rek. Mm. li olof Ndiaye doon wax mooy eh, séet nee nañ ab séy lu ko tas nuyoo woon na ca ngoro ga waaye kenn fayu ko maanaam dañoo waxul wax wax waxantewul woon dëgg le président Macky Sall a manqué de véritable om yu wax dëgg yu recadrer recadré du ne yaay président wu réew mi rek yalla nga wala malaaka nga wala yenen tang nit nga da ngay juum. c'est clair da ngay def ay erreur hmm. mais il faut avoir l'humilité la grandeur. Hmm. de se rabaisser des fois. parce que peuple bi nga jàkkaar lool au vrai sens du terme yow sen si sen ndigal nga wara a doxe hmm. seen mbindaan nga mbindaan nak bu juumee dafa naan juum na c'est ça loolu mooy grandeur. alors c'est clair Serigne. oui euh, lenen moy li nga xamné que modi di euh, l'amnistie amnistie bi nak annoncé nañ ko exactement euh,